الحمد لله الحمد لله الذي بين الطريق وأوضح المحجة وأرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة وجعل لكل شهر خصوصية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر اعلموا عباد الله أنكم في أيام فضل الله زمانها وعظم شأنها وأقسم بها فمن الواجب عباد الله تعظيم هذه الآيات وتمييزها غير بشتى أنواع العبادات ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب mbokk yi ginnaaw bi ñu sante borom bi subhanahu wa taala moom mi leeral yabal ci ñun ay yonent alayhimu salaam ñu duñu bëggal ci lépp loo xamante ni moo ñuy jëme ci aljanna yal nañ ci yàlla dugal waaye it diñu xuppi ci lépp loo xamante ni mooy yóbbu biir safara yal nañ ci yàlla musal yàlla boobu subhanahu wa taala mooy ki jël weer yi def ci ay jagle ñu ngi seede ni amul kenn ku ñu war a jaam ku dul moom subhanahu wa taala te waruñu ko bokkaale kenn di seede ni suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawam la soppeem la jaamam la yàlla ñu ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ko topp ci njubam fi yëg guddi yëg bëccëg yëg ngay awante mbokk yi yàlla suñu borom subhanahu wa taala moo wax ci alquran al karim ci suuratu bii di suuratul fajr mu ni wal fajri giñ naa ci fajar wala yaalin asr ak fukki fani tabaski borom bi subhanahu wa taala mooy ki giñ mbokk yi ana ci lañ la giñ ci li mu giñ mooy al fajr yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni rakaataani al fajr ñaari rakkaay fajar xayrun min ad-dunya wa ma fiha da doon doy sëkk rek ñu ne yàlla subhanahu wa taala moo waat mu ñëwaat ni wala yaalin ashr boo demee ci ibnu kasir nee na la yaalin ashr mooy fukki fani tabaski ci jamono yee ci ginnaaw weeru feeñ na jamono yi ñuy wax ñu ngi toll ci la yaalin ashr mbokk yi kon li war ci bépp jullit bu dégg borom bi subhanahu wa taala waat ci bis yi la war ci moom mooy mu fexee taxaw màggal yii lay bis ci bépp xeetu jaamu yàlla nag ndax moom subhanahu wa taala waxaat na ni zalika wa man yuazim sha'air allah képp koo xamante ni yaa ngi màggal yi lay jamono yi symbole yi nga xamante ni yàlla moo ko jagle képp ku koy màggal nee na loolu dafa bokk ci ragal yàlla wa yaqulu alayhi salaatu wa salaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaat waxat ci xadis mu ni ma min ayaamin alamalu saalixu fiha ahabu ila allah min hadihi alayaam yaani ayaami alashr qaalu ya rasul allah wala aljihaadu fi sabilillah qaala wala aljihaadu fi sabilillah illa rajulun xaraja bi nafsihi wa maalihi falam yarjic maa dalika bi shay alayhi salaatu wasalaam nee na amul benn bés ci bisu at yi jàmbi di def xeetu jaamu yàlla yi nga xamante ni bokk na ci julli bokk na ci woor bokk na ci saraxe bokk na ci di def njekk ci say wayjur bokk na ci di tudd yàlla bokk na ci bari looy dem ci yoonu jàkka ja bokk na ci dem di seeti ji ku feebar yooyu la yépp ba ci digle lu baax ak tere lu bon muy xeetu jaamu yàlla yoo xamante ni yàlla da ko bëgg ci bépp jamono waaye yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na gënalul yàlla lu raw ci bis yi ñu nekk muy layaali ashri yi ñu toll bi alayhi salaatu wasalaam waxee loolu saxaaba yi dañ ni ko walal jihaadu fi sabilillah ba ci jël ngànnaay dem jihaad ci yoonu yàlla ngir diine islam féete ca kaw mu ni leen walal jihaadu fi sabilillah ki saraxe ci jamono ji moo gën a màgg sax jihaad fi sabilillah ki naafila ci jamono ji yokku say naafila moo gën sax jihaad fi sabilillah xeetu jaamu yàlla yi ñu tudd yépp mu ni ba mu des waa joo xamante ni dafa génn ngir jihaadi fi sabilillah mu génne waale lu mu am ci alal bàyyiwul dara ginnaaw dem te dellosi waalewul dara ci njabootam dellosi waalewul alal dellosi waalewul bakkan kooku rek nga mënul raw mais ku dul kooku lenn loo def ci waa xeetu jaamu yàlla nee na ci jamono ji la gënal yàlla ba ci jihaad fi sabilillah mbokk yi dafay doy tamit ñu xam ne dafa bokk ci fukki fan yi ñu toll bokk na ci bis bi nga xamante ni ñu nekk ci jamono ji ci buqaatu tahir ci suuf yu sell see ci diggante Makka ak Madina yawmu tarwiya muy huitième jour bi nga xamee ni képp kuy ojaaj dañ ko jóge Makka jëm mun na ngir waajal yi bis bi nga xamante ne mooy bisu Arafa yawmu tarwiya boobu mi ngi nekk ci bis bi nga xamante ni mooy layaali asr mu bokk ba tey mbokk yi ci fukki fan yi nga xamante ni moom la borom subhanahu wa taala giñ bis bi nga xamante ni mooy yawmu arafa yawmu arafa muy bis bi nga xamante ni ci la borom bi subhanahu wa taala di xool jaama mi bëtu yërmande yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na amul bis bu yàlla subhanahu wa taala di goral ay jaam ci biir safara bis boo xamante ni yàlla da ciy goral ay jaam ñoo xamante ni ñoom safara moo yelloon ci ñoom benn bis bi nga xamante ni mooy bis yow na arafa la ci yàlla di goral ci ay jaam du ko goral ci beneen bis ay jaam ci bis boobu subhanahu wa taala da ciy taxaw inna allaha taala yubaahi bi ahli arafat ña nga xamante ni ci bis yowmu arafa dañu taxaw ca bërëb boobu ñoom ñëpp sol lu weex tàll ba ñuy jël ñi nga xamee ne dañoo feebar ci hôpital ya di leen dugal ci ambulance yi di leen indi ci taxawaay boobu di bisu yowmu arafa ndax dafa bonk ci bonk yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla dafay taxaw di puuka réew ak malaaka yi mu ne xool leen sama jaam ñii nga xamante ni ñoo taxaw ci bërëb bii unzuru ila ibadi jaa'uni shu'usan ghubran xool leen sama jaam yi nga xamante ni fu ne lañ jóge ci kaw suuf ngir teew ci si bërëb bii ci ay bërëb yu fasantu ko yu sori lool ngir sama jëmm ji mu ne malaaka yi ashhadukum anni qad ghafartu lahum maa ngi leen di seere ni ñoom ñëpp jéggal naa leen seen bàkkaar mbokk yi loolu gën dara gënu ko rëy ci kaw suuf borom bi subhanahu wa ta'ala tiim ay jaamam woo malaaka yi bañ ñëw mu ne seere leen ne sama jaam ñi ñëpp jéggal naa leen fompal naa leen seen bàkkaar moom seen wecc mbokk yi ndax xéewal googu day yem ci ñooñu noonu nekk ci arafa kese déedéet yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp koo xamante ni bis boobu fekk na la feneen fu dul ceew arafa ndax ñoom duñ ko woor nee na yow nga woor ca fa nga nekk te bis boobu mu ngi tombeeg alxamis bii di ñëw insha allahu taala mu ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na am naa yaakaar ni yàlla dina la jéggal sa bàkkaar ya nga weesu ci at bi weesu ak bàkkaar yi nga xamante ni moo nekk ci at mi nga dëng mbokk yi muy ay xéewal yoo xamante ni day doy sët kon ñu ni borom subhanahu wa ta'ala ca la mu waat xam na ko mbokk yi ci bis boobu nga xamante ni mooy bisu arafa yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na nañ ci bëri lu ñu tudd yàlla wa xayru ma qultu ana wa nabiyuuna min baadi la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir nee na lépp lu fa yaay di wax ci zikkar doo wax lu gën lu ma daan lu may wax man ak li nga xam te moom la yonente yi daan wax ñu ma jiitu woon mooy la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu amul benn war buur bu nu war a jaamu ku dul yàlla subhanahu wa taala te waruñu ko bokkaale ak kenn la sharika lahu lahul mulk mooy borom nguur wa lahul hamd te moom dong mooy yoo sant wa huwa ala kulli shay'in qadir am rek moo am kàttanu lépp lu mu mën a doon moom mooy ki tëlewul dara kon mbokk yi fan yi nga xamante ni ci la ñu toll mooy layaali naas màggaayam dafay doyaat yi ñu préciser ni jaamu yàlla yépp muy arkaanul islaam ponk islaam yi yàlla da koo dëxañ ci fukki fan yi jullee ngi ci woor a ngi ci aja ngi ci saraxe ngi ci mooy zakat ak xeet tudd yàlla yépp moo tax yoon saa salaam nee na bu fekkente ni bis yi ñëw na na ngeen ci bari lu ngeen di tudd yàlla ki nga xamante ni mënul génne alal pour joxe amul kàttanu woor amul xéewalu yàlla defal ko tawfiix mu dem fii baytillahi alxaram munul jàng sax alquran ndax yàlla dogalu ci moom mu mën a sax lire alquran nen bul jàpp ni ko noonu ndokk ma ci nee na na ngay wax laa ilaha illa allah allahu akbar walhamdulillah nee na baat yi lu mu gàtt-gàtt sax nee na loolu jëlul benn effort du koy tudd ci bépp béréb nag ak foo mën a nekk moo xam nga taxaw moo xam nga toog moo xam nga tëdd lu ci wanag foo toll nga koy wax nee na dafay bokk sax yiw gi nga jékki-jékki toog ci biram nga ni laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu lmulk wa lahu lhamdu wa ala kulli shay'in qadir wala nga ni subhanallah xeetu tudd yàlla boo mën a tudd yàlla keneen ku ko dégg kooku tën biir lay nekk ci moom te waa kii la muy tudd yàlla bu la ko laajee nga ne ko ñun ci layaalin ashr kooku suy def di tudd yàlla yow mi ko digal di nga am yool moom dina am yool أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين mbokk yi ginnaaw bi ñu santaate borom subhanahu wa taala di julli di salmal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëw ba tey di wax ci layaalin ashr fukki fi nga xamante ni ci la borom subhanahu wa taala giñ mu bokk ci bis bi nga xamante ni mooy bisu tabaski ñu defoon ci xutba bi passé benn muqaddima introduction ci xamle cosaanu lii du tabaski mu jóge woon ci suñu maam Ibrahim alayhi salaam di ko yàlla tegee bépp nat mu jàkkaarloog way juram ak xeetu lëmm defee leen ci tawxiid biñ ko génnee Allah wax inni zahibun ila rabbi sa yahdi maa ngi dem dëgmali kenn nga xamante ne moom dong la yaakaar moom dina ma jubal ñaan yàlla ne ko rabbi habli min as-salihin yow yàlla maa ngi lay ñaan nga boole ma ci ñi nga xamante ni nga may ma doom joo xamante ni ci ñu yiw la ñuy bokk yàlla may ko doom muy Ismaayil yàlla nattu ko nag ngir mu war a faat doomam jooju rendi ko ci loxoom loolu mooy cosaanu tabaski mu nekk ay bind ñu fa jëloon yu bari bokkoon na ci bind yooyu mooy lii di buntu xéewal buntu xéewal caabi natt moo koy tëj ndax yàlla natt na Ibrahima alayhi salaam yàlla defal na koy xéewal yàlla natt woon na soxnaam Ibrahima jël ko yóbbu ko ba ca àll ba teg ko fa mu muñ nangu ndigalu boroomam ci borom këram yu mu naan exécuté ci kawam yàlla fay na koy xéewal naka noonu it doom ji di Ismaayil la moo waxoon papa yi mooy yaa abati if'al maa tu'mar satajiduni insha allah min as-saabiriin yow baay booy defal li la yàlla digal da ma fekk ci ma nekk ci way muñkat yi mu nekk ñetti natt yoo xamante ni yàlla tegoon na ko jaamam yooyu ñu nangu natt yi moo tijji buntu xew bi nga xamante ni kii ba yawmal qiyaam di taxaw dañuy am ci yool yi mbokk yi suuf na soosu nag moom la yàlla dekkalaat fii xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la saxaaba yi laajoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw tabaski moom moom lan la ci ñun muy leen sunnay suñu maam ibrahim alayhi salaam la ñu ne ko waa léegi ñun luñ ciy am ci bu ñu jëlee tabaski jël am xar bi yàlla wecce woon ak ismail muy tabaski ñun lan lañ ciy am bu ñu rendee xarum tabaski yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni leen xarum tabaski de bu dee da nga am xar fas yéene tabaski nee na booy rendi xar wi te yàlla rek tax bépp karaw bu nekk ci xar wi bépp karaw bu dee lenn nga ni bépp lenn bu nekk ci xar wi yàlla da koy def ay tuyaaba mu ni loolu mooy li ngeen di am ci tabaski yàlla ne ni lan yanaala llaahu luhuumuhaa wala dimaa'uhaa walaakin yanaaluhu taqwa minkum xar wi ngay rendi yow yaay considéré ndawal geeg leneen ak leneen ci xar mi waaye yàlla ne ma la ma ca soxla mooy nangu gi nga nangu ni lu ma digle leen ndax sunna soo xamante ne ju war la ci ko mën ku mën a tabaski ku mën tabaski te tabaski woo kooku day am bàkkaar mais ki ko mënul kooku wàcc na ko bu fekkente ne nag yaa ngi ko mën ba koy def te yàlla rek tax yàlla mu ne soxlawu ma ndawal gi soxlawu ma leen la ma ca soxla mooy nga nangu ni maa ko digle nga def ko loolu ci laa lay fayee kon sax perte na mën nañu wax ki nga xamante ne moom dafa taxaw ni par il faut ma tabaski jënd am am xarum tabaski ak nu ma mën a coûter kooku moom yow yaa tegal dund gi sa kaw waaye doon na la doy sëkk ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam mi taxawoon di ren di am xaram mu ni yow yàlla xar wi de maa ngi koy rendi ngir man muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ahli man ak sama njaboot te képp kuy rendi tabaski yéene ba ngay am rendi am xarum tabaski nga yéene waale ci sa njaboot waaye newul ni ni borom ñaari soxna yi di def ni damay jëndal soxna si xar jëndal kële xar kon jëndaloo sa bopp mais boo jëndee sam xar tabaski nga ñëw di ko rendi ngir sa njaboot yéene leen ci loolu yéen gi man na kon yow mi nga xamante ne mënuloo ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne lii de man yàlla may ren di maa ngi koy ren ngir man ak sama njaboot loolu la ñu war a roy ci moom muy li njëkk leneen li ci des mu ni mu jël beneen xar mu rendi ko mu ni bii nag ngir samam xeet képp ku ci amul ab tabaski yóbbaale naa la mbokk yi loolu moom gënu la rëy loolu moom yow yaa gën fuuf ki nga xamante ne jënd xaru trois cent mille taxaw woo njaboot gi ne sangal leen ma ko fay ci penc bi ñëpp xam ni ñu ngi sang xar fu mu gën a man de sama xar maa ngi jënd xaru trois cent mille laa jëndee subhanallah amoo ci dara dudul loo nga wax li nga wax ne xarum trois cent mille laa jënd wala xarum quatre cent mille nit ñi dégg ko yéemu ci boo demee ci borom subhanahu wa taala doo fekk am xarum tabaski doo fekk yool ndax loolu nga ci bëggoon angoo ko kon yow mi ko mën def ko te yàlla tax ki ko mënul nag naka muñ xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam tabaskil na ko mënu ko laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha mbokk yi mu bokk nag ci charte yi nga xamante ni li borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni lii moo dagana tabaskee mooy géttu kër yi mooy juru kër yi bi ci jiitu mooy ab an xar xar moo xamante ay atam egg na ci juróom benn weer xar mi nag am âge am na dolli ci juróom benn weer su ko weesoo baax na bu fekkente ne dafa am juróom benn weer te doon xar moo xam xar mu ndaw la waaye am na suuf nee na tabaskee ko bul séntu ni ah kii de su ma ko woo mata yóbbu soxna si moom bu ma fi daj soxna si kon xanaa mel ni Haajara joxoon nañu dars bu fekkente ni amuloo am xar nee na na nga tabaskee am bëy bëy gis naa waa joo xam moom bu mu jëndee bëy dafa ñaaw gémmiñ gi gémmiñ gi la ñaaw ni ko doo ko fi jooyee moom ci mbedd bi ñu xam ne bëy laa tabaskee te boo demee mbokk yi ci zone sud bi fii jamono ji buntu kër boo remb yaa ngi ko gis ngan dem bëy bu ñu yeew man an ba at ma ko njëkk a gis dama ne waa lu xam ni bëy yi nii bëy yi ma daan gis ñu taxaw ku nekk yaa ngi yeew ab bëy sa li tabas dañuy waajal tabaski ma ne allahu akbar ñii de rëy ñoom ñi rëy ñoom yor nga bëy sam kër amuloo njëgum xarum tabaski rendil sa bëy dagan na na bëy ba am rek un an naam at bu dee amuloo bëy ne na nga tabaskee nag nag donte da ngeen koy bokkoo am na xaris yu wax ni bu dee juróom-ñaari nit mën nañoo bokkoo jëndum nag xar amul dañ ko jëm ñu tabaskee ko mbokk yi yàlla def na lépp loo xam ne lu jàppandal la suñu dund gi ngir ñu def ko nit ñi ñoo ko xamul léegi nag nit ñi ñoo ko xamul waaye képp ku gëstu nga xool lii la yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngal ji am am am tabaski su dee ni amoon nag nga ut gëléem gëléem boo xamante ni ay atam day toll ci juróomi at nag deux ans bu dee ni gëléem juróomi at yii ñu wax léegi nag yan lañ ci war a tabaskee yoo xam ne da koy mat gannaaw at bi ak bu nekkulee nag wala xar wala bëy wala gëléem yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na shurutil udhiya an takuna xaaliyan min ayub na nekk lu mucc ci ayib yi ñuy wax benn bi mooy arjo al bayin arjuha na nekk bu dee xar wala yi ñu tudd léegi na mucc ci luy soox xar muy soox ba nga xam ne kii boo xool xam ne xar mi dafa làggi loolu neen matul tabaski matul bi ci tam mooy al awra al bayin awruha xar moo xamante ni wala yi ñu tudd léegi boo xamante ni du gis wala bët bi dafa dafa patt du gis am na xar yoo xam ne dañuy xool nii nii mais duñu gis yooyu yow miy jënd na nga bàyyi xel ci la nga jënd waaye kiy jaay tamit na am ragalu yàlla ne bu matul ci yéen yi bu mu ko génne di ko jaay ndax ku mu ko jaay kooku am xaram tabaski matul kon muy ñaareelu ayib bi nga xam ne su amee ci am xar xaram matul tabaski wala al maridul bayyin marduha xar moo xam ne dafa feebar ba ko xool xam ne xam ne daa feebar xar moom kenn du ko tabaski muy xar muy bëy wala nag wala gëléem wala wal ajfa mooy xar moo xamante ne daa loof loof ba ko xool xam ne ki amul benn suuf kooku moom ne nee na tamit bokk ci yi nga xamante ni moom la ñu war a tabaski mbokk yi ginnaaw bi nga amee xar moo xamante ni mucc na ci ay bii ay atam aussi egg na ci at bi nga xam mën nga ko tabaski kañ nga ko war a tabaski ban waxtu waxtu bi dañ koo taxdiidal shariyan képp koo xamante ne ren nga sam taba sam xarum tabaski te fekk julleeguñu amoo xarum tabaski amoo am xarum tabaski bala ngaa rend xarum tabaski day fekk ñu julli ci penc ma ba pare boo demee nga soog a rendi sam sam xar looloo tax ñu indi woon sax ay aada ci suñu pencu Sénégal ñu ne xaru imam nañ ko indi ci penc mi nga xam ne bu jullee ba pare day mën a lewetalal xaram ñëpp mën a yeewee ko dem rendi ji seeni xar waaye ala kulli xaalin li wér mooy boo rendee te fekk julleeguñu sam tabaski matul beneen bi mooy ndax ci bisub tabaski bi rek nga war a mën a rendi wala déedéet bis boobu dañ ne mooy li gën mais bu fekkente ne mënoo ko am ci bisu tabaski bi ñetti fan yi nga xam ne moom ayyamu tashriq ci aji màkk ñetti fan yi muy toog mun na ñaari fan wala ñetti fan al aqal ci ci ëpp ñetti fan yooyu mooy ñetti fan yu niin yi ñetti fan yooyu noonu mën nga ci rendi sam xaru tabaski su xasee nag ci ñetteeli fan ba ba tibis gi dugg rek moom tabaski moom mënatul nekk leneen loo ray moom ak noos lay nekk rek waaye nekkatul am tabaski yàlla ñu yàlla yombalal nag lépp loo xamante ne borom kër mu ngi ko bëgg ngir dabu sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci am yoonu tabaski yàlla yombalal la nga am ko yàlla na ko yàlla yombalal képp koo xamante ni yaa ngi koy uti ji mbokk yi boo demee ba ren di sam xarum tabaski bu ci génne benn cër fàllare bàjje nag yeelu lu mu mën a doon ci ab cër boo ko ci génnewee sam tabaski matatul ba ci lay rendil sax bu la rendil ba pare bu ko fay ci ndawal gi yëkkatil sa poos nga jox ko mais bu ko jox mukk ci ndawal gi loo xamante ne na nga koy fayee wala nga yëkkati ab tànk ne tànku bàjjeen wala tànku njëkkee tànku loo ci génne sam tabaski matatul sam tabaski matatul amul cër bu doomu aadama am ci am tabaski cër bi yëpp yàllaa ko moom allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غزة اللهم انصرهم وعافهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله